pourquoi ces Thiessois là ces nommés là amuñu fullay taxaw ne ko Idriss Seck li ko ab Ablaye Wade defal ba mu jël Thiès defal ñu ko ñu dem jël Thiès. waaw mais concrètement concrètement des fois nañu Habib wax lan la président Macky Sall war a dolli ci loolu parce que en 2004 44 milliards la ñu wax ne dañu jël. Mhm. ay grappes convergence la ñu waroon def ci ñett at ñu dajale ko ci benn at def ko ci benn dëkk. Mhm. xalaatu président uh, Idriss Seck muy lu rafet président Abdoulaye Wade fekk si pour dooleel ko mais loolu bu continué woon tey jii peut-être Sénégal dina romb fii mais Habib Kane président Macky bu jëlee nommé ay doomu Thiès ay poste ministre PCA directeur général ah ba si député ñoo xam ne ci liste nationale la leen tànnee mais dese lu leen dara mais lan la leen war a doole te président Macky Sall bi ñu ko falee léegi nee na dugal na lu ëpp junni milliards ci région de Thiès mais fan la xaalis boobu. mais Babacar xam nga yow tu nous parles du man je parle du président et de la population. parce que man fi may toll fi may toll tey si on blâme man si je blâme ñu ñu ñoomee lay blâmer parce que li tax nanguwu ñëw jël seen responsabilité en tant que tel bu ñu leen di fal Macky Sall di leen woo leen fal tey on peut on peut euh, le nom de Siré Dia Siré Dia PCA Lona. ancien il fait parmi il fait parmi des nommés. parmi des nommés. donte dooleem dañ ko wàññi. non non il fait parmi des nommés. mine de la responsabilité bi nga xam ne amoon na ko moom en tant que directeur de poste créé na ci des des emplois. man je pa pas dire le nombre. mais tey si on parle de deux cent jeunes yoo xam tey si la jël na la ñu ngi liggéey à Thiès en di nekk kenn ci ñi ñuy nommé muy les quarante. prends les 39 ku nekk jël 200. Hmm. multiplier euh, plus les 200 da ciy daje. ça fait combien de personnes. ça fait combien de personnes. ñu jëlee 16 000 bien 12 000 emplois. 12 000 emplois que tu divises dans les trois communes. commune bu nekk nga may ko benn 4 000 emplois. mais ça fait partie du développement de day yombal liggéey Macky Sall parce que problème bi mooy defar mbedd yi taal lamp yi. baax na mais tolluñu ci cette dynamique là dynamique bi ñu toll mooy lekk ak naan te Sénégal dama lay wax dañoo am chance euh, heureusement ba ñu amee kilifa diine yu baax yi mais ñun ñu tukki xam nañ ni lekk kaay añ Sénégal la am particulièrement à Thiès Dakar amu fa. particulièrement ak dans les mais tey su suñu amoon ñii yeneen dëkk yi di dundee wala sous région wala Dakar. tey ça sera plus pur da ngay toog supposons sous région bi nii rek da ngay dem toog ay Nigéria wala kii heure añ jot ni ñu toogee nii añ plat yi ñëw ku ne jël sa plat yow nga toog sa plat yi ñëwul waa jël dugub añ añ gën daan ne la j'ai bien mangé mais loolu bu amul fii kon Sénégal benn erreur am li may wax naan parfois nga nekk xale nga dem jàngi ba wàcc war a ñibbi seen kër ànd ak sa morom dem toog seen buntu kër. di waxtaan di kaf di rek sa yaay tegul cin sa yaay tegul cin doo toog kër kenn. mais avec toi est-ce que loolu également du photo euh, ces pour ne pas dire politiciens parce que système bi la ah bi ñu amee indépendance ba léegi. ñaata président si lañ toll. mais ku ñëw di nga am foo def mais après ba xool dafa mel la répétition koo fal say mbokk say xarit say àndandoo sa famille politique wala jeex na sa sëriñ ak ñi nga gëm hmm? balaa sa mandat di jeex. pratiquement la ñëwee doo ko def yaa ngi wax mais Sénégal tey jii autosuffisance alimentaire boobu mais ñu bëri ñu ngi wax ne président yi ba léegi lajj nañ si waroon nañ mën a toll tey jii nit ñi mën a dund sans ñu am ay difficultés mais Thiès par exemple daan si ñëw yow promoteur immobilier nga mais li ñu waroon fii tool yi ñu waroon sax bay léegi pratiquement waa Dakar ak ñeneen ñëpp ngi ñëw pour tabax si est-ce que bu ñu demee ba la ñu waroon bayee baykat yi amatuñ fu ñu bayee loolu du jafe-jafe non baykat yi ñàkkuñu fu ñu bayee ñu sant yàlla ci ren. ci suuf si day am na léegi suuf si day am na. dañuy sant suuf si dafa day na suuf si day na peut-être non ñun ñi ci nekk mën nañ ci wax. Euh, ñun ñi ci nekk xam nañ ni am na. Hmm. Euh, euh, li may wax naan sant yàlla. nit du yow yor toolam ñu ñëw ñu nangu. non non falaa jëma yow Babacar. sant yàlla ren parce que suñu borom def na li gën mooy que ne ren ñun ñëpp xam nañ nawet bi naat na. macha allah fii ak fan ci weer bi di nga xam ni. Euh, Sénégal dund gi dina gën a gën a yomb. kan kan dina gën a yomb. Euh, je pense que nii jàggatul dara parce que nawet moom bu naatee rek lekk di yomb te ren ñun ñëpp sentir nañ ni nawet bi naat na ñun ñëpp dem ba doon ci ndox mi ndax yaa beaucoup de dégâts loolu duñ ci duñ ci duñ du ma ci mën a wax lu dul bàyyi lépp suñu loxo suñu borom lu leen koo gërëm ci ni mu ko doxalee. Euh, à travers mm, suñu sëriñ yu baax yi kilifa diine yi def ay ñaan ba nawet bi naatee noonu mais. yoo daal suuf su doy pour mbay am na Sénégal. mais lan mooy expliquer coow suuf si Sénégal mais ba si suñu région bi yoo si biir biir bi. waaw waaw xam nga xam nga Sénégal. mu maay wax sama benn xarit maa ngi leen kan le cas de Diender rek xam nga ñun dëkkuñu fa. Ndengaleer Ndengaleer Ndengaleer le Ndengaleer. Mm-hmm. boo xoolee tey le bi du sédiment liñ ci wax problème yi fa am. xam nga euh, damay dégg état bi naan kenn amul droit en plus de dix hectares ñu attribuer la ko sans pour autant avoir un projet tey quand on parle d'un projet de trois cent et quelques hectares ñu jël ko attribuer ko une personne mais y a un protocole y un protocole ñu titre foncier bi boobu dafa am lu ko jiitu avant mu wuti titre foncier s'il n'avait pas l'avis des favorables de la commune ak les chefs de village ba tax ñu mën a ko céder une euh, une délibération sur cette surface du dem du du instruire du instruire pour am bail bay am titre foncier mais bu population bi demee ba révolutionnaire daan ne bañ ne ñett dootul am parce que les protocoles ne sont pas respectés la mu waxante woon ak ñoom mu nekk protocole bi bu buñ ko génnee wax ji day leer parce que protocole boobu moo ko permettre gars yi nangu li mu def. protocole boobu moo ko may ñu ni ko 300 hectares yaa ngi nii protocole bi moo ne ko man su ma defee dinaa jël dinaa jël ci waa dëkk bi 4000 emplois dinaa leen defaral hôpital dinaa tabax école dinaa jëndi ambulance dinaa tabax jàkk ji dinaa def di dinaa def di mais pour le début à chaque fois day dal les promoteurs ak les partenaires yi xam ne dañuy wut suuf léeg-léeg ñëw taxaw pour un coup rek ñëw taxaw ñu am jumaa jaa ngi nii ñu peinturaat lal moquette jënd benn ambulance garé ecole baa ngi nii def benn defar réfectionné waat douche yi daal di dem foog ni atteindre nañu l'objectif du protocole. bu ma la déggee lu ci bare promoteur yi ñoo dul matal engagement yi. ñoom la ñoom la fekk na le protocole là bi ñu yor dañuy continuer seen procédure or mhm. que les a restent à côté. di xaar fii à côté dans le Diobass Mbomboy. ñoo yëpp ne pas cité amoon na benn projet. mais effectivement dañu nangu sax lan lañ xam nga boo gisee ma njëkkee foofu. Mhm. parce que c'est le plus grand projet actuellement bu ñu xamante ni moo nekk. di ëpp coow quoi média bi <laughs> te lii may wax nii damay dégg gars yi di ko wax ci télé yi maa ngi seetaan di seetaan de yi mais il faut que ñuy wax nit ñi fi mu commencé wëññi boo gis ci benn la commencé c' est pas que la personne dafa dem jël 300 hectares def ko bàyyi def ko titre foncier Macky Sall la ko jox non non fi mu war a. fi mu war jaar bu fa jaaree dem ci administration Macky Sall da koy visé mais fi mu war a jaar su fekkee ni protocole bi respecté wul engagement yi fa mu signé woon ak ñoom bi ñoon ñooy kase protocole bi. en retour da ngay ànd ki nga bëgg parce que receveur nit la <laughs> receveur turam la bu nekkee biiram mais bu génn ci nit nit la ñëpp. kii fi kii fi kii fi est-ce que bëgguñu poste yooyu ñu leen parce que ab chef des des services fiscaux d'une région quand même le receveur des domaines donte li ngay wax ne mairie yi am nañ ci cër bu yaatu mais toujours ñoom la ñu wax boo wax ñu ni domaine receveur moom signal yi moo la ak coowu sa. non mais yow tu me poses deux questions tu me poses deux questions différentes. waaw mais ñoo bokk non non non non tu me poses deux questions différentes bu ñu jógee ci li ñuy wax nii. nga bëgg moo wax jëm ci côté receveur. receveur bu nu ma dem ci moom day nekk benn étape boo xam ne dañuy jógee kon li ma la wax nii ma dugg ci mën a dem. léegi yow sa explication receveur yi des domaines yi pratiquement Sénégal. ci ci ban ci ban ci ban firnde maanaam ban question nan nga ma bëgg a laajee receveur bi ci li mu def lan la war a def wala lan la war wala mais bu njëkk ba. Ah. da nga naan peut-être nit dina nekk si dëkk si si dëkk. Mhm. receveur sax peut-être du xam turam bu mu liggéey fa ko romb fa dem feneen. Mhm. mais léegi receveur yooyu nekk au premier plan si politique bi Babacar ak mouvement am MDM ba dooleel Macky. Hmm. jibi si bi fi nekk mi ngi jàppale président mag à Oréfondé dans la région de Matam. ok à côté à Mbour. notre hmm. ami Magay Boy mi ngi politique à Xombol ba gën a nekk maire Xombol juste pour citer exemple yooyu directeur des domaines euh, Mamboy Diaw dégg nga hmm. directeur général des impôts ñoom ñëpp ñu ngi si politique bi quoi loolu laa bëgg wax yow. yow miy liggéey ñoom. loolu expliqué voilà voilà politique moom damay wax ci pour déjà pour far bi. en tant que receveur euh, du ma ci wax mais je parle au de Djiby en tant que receveur wala Babacar Pascal en tant que receveur ou bien Mamadou Diaw en tant que directeur euh, que ni moom que je peux donner même le nom du du DAGE du ministre de la justice à Ablaye Sy qui est qui est qui est un inspecteur des impôts mm-hmm. ñooñu ñëpp c'est des exemples tey dañu dañu am seen maanaam seen yéene bopp ne dañuy faral diw loolu moom la engagé mais bokkul ak li nga xamante ni nag liggéeyu administration la administration bi bokkul ak fi Macky Sall bu ma neexee ma jël sama carte ma génn léegi taal sama oto dem bokk ci action Macky Sall jàppale ko mais bu ma Babacar Ndao soxla et cetera ak la population damay dem toog liggéeyal leen. mais mais nooy expliquer Thiès am ñu ay euh, citoyens yu honnête am seen ay terrain ñu ñëw ñu ni receveur ak mairie service technique ñoo ko nangu jox ko ñeneen yow miy liggéey si wàllu suuf expliquer ñu abi voilà voilà voilà euh, c'est par rapport li ngay wax noonu ci commission yaa ngi a posé peut-être question mais posé ma am na loo tëb parce que ñi fi nga commencé question bi dafa am ñu leen jiitu. Hmm. dans chaque quartier y a un délégué de quartier dans chaque quartier y a un délégué de quartier. ñooñu am nañ poids bu mën a. délégué de quartier bu ñuy def les recensements des terrain pour la désaffectation moom la ñu jiital parce que c'est lui qui délimite moo naan bii kër bii kër bii kër bii kër ak bii yàgg nañ fi kenn tabax ko en tant que délégué quartier mine de rien def na fa 30 ans wala 40 ans. dina fa jënd kër war na xam ñi ko moom. pour man suñu tey mairie ne Babacar Ndao en tant que citoyen tabax këram L plus euh, tabax am akaloog àll Arma Diouf mu tabax beneen deuxième terrain bi troisième terrain bi nekk seen diggante ñu fay sotti mbalit ngeen am seen njaboot mu leer leen ne nawet jot na ñax mën na fa jóg jaan génn fa dara dugg seen kër laal seen i doom am ngeen droit dénoncer ko la mairie ne leen ñu lamel su fekkee da ko war a nettoyer une fois une deuxième fois mu net war ko nettoyer gisul kenn mën nañ ne demander nañu def la désinfection des parcelles. Ah, yi nga xam ne procédure. ça dit ma yow la procédure je vais te le dire. Mm. mooy li ma wax ni maire day demander su maire demande da koy demander supposons le préfet lay koy demander pour au début maire buy bind préfet lay bind. parce que lui le représentant de l'État moom lay wax ne ko dañu am ay terrain ñu gis ci àll ci biir dëkk bi yoo xam ne bu nawet jotee ay bari dañu fay tuur et cetera te bi ñu ko joxoon dañ leen ko mayoon parce que les actes administratifs actes yoo administration yoo xamante ni c'est bien noir c'est blanc que ni personne n'a pas le droit ni de vendre ni de céder sans pour autant avoir l'autorisation euh, des chefs de service mm-hmm. lettre yëpp yaakaar naa loolu lañu ci képp ku jàng boo xoolee dinañ ko ci gis mais tey su chef maire defee loolu rapporté ko le préfet le préfet accordé ko pour un temps ne ko va voir avec les délégués de quartier ngeen def les recensements mais le délégué de quartier bu ñu ñëwee wax ak moom ne ko kër gi ko fi nekkoon mu ne noo kër gii de diw ko jëndoon waaye ba mu ko jëndee ba léegi ñëwul xam na diw mi ko jëndoon ko mayal parce que côté yooyu du terrain ñu jaay Mbour 3 Grand Saint Mbour 2 extra yooyu du ay terrain yëpp du ñu jaay état ko dagg maye ko ñu ko jox yëpp dañ leen ko may kenn jaay comprendre ma léegi bu doxee meer loolu maire ànd ak moom dem gis la délégué quartier wax ko ko délégué quartier bi ñëw ne ko non di woo ko jëndoon mat na fi ay at ñëw mënu mais délégué quartier bu ñu la defee le délégué quartier dafa am lu tax ne xool mhm. est-ce que quartier mënul leen ne may leen ma un mois wala deux mois que je puisse faire tour du quartier laaj ku ci nekk borom terrain bi ndax xamul fu mu dëkk ndax xam nga ko wala xamoo ko. mais day sax dañ naan la demal ci presse bi def. communiqué non non non non egguñu si point là dama ko si point là sa point là egg ma cee parce que cinq minutes moo ñu dese awi non d'accord mais dama ne délégué quartier. moo war a def loolu. su ko délégué quartier deful lan mooy am mooy le maire en personne su délégué defee li mu def ba pare dañu ñëw rapporter ko maire ne ko def naa lépp mais bii ak bii ak bii gisuma seeni borom gis kenn xamul yàlla rek xam. c'est la fait de bonne foi ou pas lan mooy xew le maire day jël tenir compte par rapport à ça. le maire il a un président euh, il a un président de la mairie mais ci commission amee mu nekk commission boo dem euh, administration centrale le maire de la commune que ça soit Aliou Sow Lamine Diallo Pape Diop ñoom ñëpp dañuy nekk ay président comme domanial. maire de la ville là le maire de la ville c'est lui actuellement qui vient comme maire. maire central moo ñëw kon maire mais les trois maires dañuy nekk des présidents comme domanial bi ñu ñëwee ñu toog autant avec l'ex préfet qui est actuellement préfet de Dakar euh, toog ñu waxtaan ñu d' accord ñu seet ce principe là léegi nañ désinfecté les parcelles léegi na maire def l' annonce mais foofu la erreur bi amee faille bi mooy bi maire di def annonce pour la désinfectation des parcelles dafa waroon la wax ni ñu ngi désinfecté les parcelle yi nga xam ne kenn dëkku ci woon te ñu maye ko képp koo xam ne bëgg nga ci kay nga introduire une demande pour que bu ñuy désinfecté ñu mën laa réinfecté maanaam yi ñu nangu yoon may ne ko mais anam bi ñu ko joxewaatee. joxe bi foofu la faay bi ne. faay bi mu ngi nekk ci joxe bi parce que dafa wax ñu ngi nangu mais waxul ni li ñuy nangu ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu ñu ngi ñu ngi nangu ñooñu am na ñu ci bëggoon nekk bénéficiaire. parce que ñenn ne ay kilifa lañ ko joxaat ay borom barke. fa laa jëm fa laa jëm fa laa jëm fa laa jëm ak yow fa laa jëm ko parce que buñ ne nañ ko defalee noonu ñu dem jox ko bi ñu d'accord annonce bi jàll na yow xam nga ne annonce bi jàll na indi nañ ko jaar na fi mu war a jaar am na benn faay mooy maire raté na ko benn faay bi délégué de quartier raté na ko mu desaat administration centrale ñu war a toog d'accord ci ñu woo toutes les services techniques toog le receveur ñëw toog le receveur il est il simple rapporteur dans le dans commission amul benn décision bu mu ci jël. waaw mais kayitu kër bu ñu. non laisse-moi terminer laisse-moi terminer non par rapport aux désinfectations dont je te parle. que toutes les lettres yi muy joxe da ciy inclure l'arrêté préfectoral et s'il s'il n'avait pas cette arrêté il ne peut pas le faire. ne Fatou mbiru suuf xam naa tey duñ du fi mën a vidé yëpp mais kon ba buñ la déggee Habib yi fi am à part failles yi nga wax noonu euh, kenn du ci mën a incriminer ab receveur de données. non non non je le receveur buy wax man man su may incriminer tey man la première personne à incriminer c' est le c' est les de quartier qui étaient censés de retrouver ces gens là. délégué yooyu maire yi fa teg. waaw moo tax ma loolu dama ne failles xam dañ ko jëlee fi mu commencé source bi luy yàqu fi mu commencé nga koy téye fi mu yàqoo mooy fii si délégal yan yan xibaar nga am ci euh, forêt classée bi ñu wax ne président Macky Sall signature am moo si war a des Mbour 4 extension yooyu ndax am nga si ay information li ma koy informé moom mooy leen na ko dese moom kat moom le président de la République ni ñi ngi bàyyi kees yaakaar ne mën nañ koo jox kees bu fekkee dañ leen bëgg dimbali dimbali waale boppam te leen rek ko dese waa kees mën koo apprécier ci mooy li ñu fi am nii muy forêt classée mu dagg ko jox ñu ko waaye kees dëkk ci. ñu dëkk suñu bi da fekk rek mu bëgg ko ca ñu mu tugal ko ci loxo yi koy caxat caxatee mais na moo déggee woon mu wax ko ne dina ko teg ci loo ko ak loxo ak loxo le le receveur que la la population prend le devant. tey ne la population kees waa prend deuxième devant instruire seen i demandes d' balaa ñuy joxe ces parcelles là ba nga xamante ni ëllëg bu ñu déggee jox nañu koo xamante ni bokkul woon ci ñu demande defoon des demandes ñoom ñu mën a wax mais bu ñu bàyyi ba ñu joxe terrain yi ñu naan man joxuñu ma man bi parce que amit administration c'est la communauté administration c'est des documents nit booy demande dara il faut faire une demande ñun ñëpp ci bokk ku ñu wuti liggéey fenn da ngay def demande. pour il est temps ñu jël nii dootul jox terrain boo xam ne préfet moo koy moo koy instruire. non mais loolu préfet ko mos a def Ndeye Fatou peut-être loolu la leen di ko yóbbu léegi mais gis nga képp terrain bu ñu la jox terrain bu ñu la jox mu nekk domaine national même boo ci wuti bàyyi s'il y a pas l'arrêté du préfet doo ko am quelle que soit la surface il te faut l'arrêté préfectoral pour nga am des documents yoo xam ne da lay mën a permettre nga am bàyyi wala titre foncier. mais léegi bu ma def 50 hectares gouverneur la. non non bàyyi ak ak ak titre foncier. mënul jàll sans pour autant avoir l'avis du gouverneur procédure la day jàll fi mu war a jaar jëlu fii dem ci gouverneur dem COD e Dakar waa Dakar traité ko daal di koy doobal ñun di jàll loolu euh, Habib Kane euh, question est claire en départ xam naa Thiès ban genre maire la war a mën a am bu fekkee élection dina am euh, fii rek 2021 ci war a doon maire bu Thiès léegi El Habib nan la war a mën mel est-ce que ab politicien la wala dañuy dem rek Euh, si li si politiciens yi dajee dem campagne ñëw ñu ni voilà kii moo ñu doy ainsi de suite comme bu njëkk bi da ngay fal sax tête de liste bi ñu dem conseil yi votel keneen. mais léegi wax nañu suffrage <coughs> direct la. kay nekk tête de moom bu listam gagné mooy nekk maire ay yoon par force. mais bu ñuy tabb léegi liste yi si sa gis-gis. maire euh, Thiès ban euh, genre maire la war a soxla. waaw xam nga problème bi mooy dama dama dama jàpp ne le moment bu ñi nga xam ne tey ñoo war li ma naan toujours en élection day am de phénomènes des phénomènes day am. maanaam yoo xam ne kenn sóoraale wu. kenn sóoraale wu non tel le cadre non non xam nga ni fi nekk ñoom ils sont là présents phénomène quand on parle phénomène mooy ku ñu gisagul man phénomène noonu laa ko jàppee parce que Macky Sall laa jël exemple bi ñu koy fal président Sénégal bi gars yi ànd ak gars yi di rey di dem Dakar di xeex ma nga ci àll Fuuta ba ñu naan daal dafa ñaari oto ñetti oto bu paanee gasoil lii ma ba mu ñëwee moo fal. Sénégal yëpp kay la du Fuuta rek. xamul da non ba mu falu xamul da parce que li gars yi doon xaar ci ñeneen yi yàlla ci moom la ko def te jàpp naa ne élection yi di ñëw mbertel dina am. ci parce que euh, li solide ci yéen dëkk yëpp partout au Sénégal ñi nga xam ne ñoo ko yor te mën a taxaw tey mën wa war wane seen bopp ñoom ñëpp dañoo toog ci mbir bi jàpp seen ñaar te nit ñi tamit ñoo moom seen i di nga gis ay liste yoo xam ne ci élection yi yoo xam ne xalaatoo ko woon. kon yaakaar ni hmm. mouvement de soutien yi am dama ne loo xalaatul woon loo leen xalaatul woon ci élection yi di ngeen ko gis. cadre de concertation pour le développement de Thiès bi Habib Kane ndax euh, xalaat nañu ngeen ciy liggéey am ab candidat ne Ndeye Fatou Niang doomu Thiès la euh, journaliste am xam-xam la bu ñu ko jiitee suñu liste mu nekk maire euh, Thiès Est parce que cité Lamy la dëkk dina baax. en tout cas Babacar. man li may wax ci Thiès mooy. Eh, dina y aura un changement. Hmm, waaw dina y aura un fexe ba suñu dëkk ñu fi dëkk gëm ko te bëgg ko dañu wut ko ñu ñu doy ñu jiit jox ñu jiite ñu. te dinañ ànd ak ñoom ci charte yu wóor charte yi mooy Thiès ne fait pas Sénégal kees ne fait pas Sénégal dinañ tënk ak ñoom xamal leen ni la localité ne peut pas réussir san avant euh, l'administration centrale. on va les obliger à collaborer avec l'administration centrale pour pour ñu liggéey ak suñu dëkk. mais mais pour ah vivre pour changement boobu commencé si administration centrale. administration centrale mais dem nañu ba ne pour dëkk Thiès nguur gu ñëw dañuy xeex ak euh, état. alors que état en réalité li ngay wax loolu mais moom mooy njëkk a toog xeex Thiès. mais Babacar boobu laa leen ma foofu laa ñu ma yow foofu laa ñu ma yow que ni loolu ñun localité bi ñoo koy wuti ñun ñooy indi ñoo xamante ne buñ leen di wax li ñu leen wax mooy que ni on est xeex xeexloowuñu leen xulloowuñu loolu niñ leen falee lañu falee ñii te liñ leen falee ñii yaa ngi ñoom ci bokk yam mooy benn liggéey muy liggéey dëkk bi Sénégal sa tekkee ci la bokk ni ñuy séddee gato bi di jox waa Louga wala Linguère aali buy mën a defar wala keneen ak keneen duñu ko war a séddee. Habib Habib Kane de Thiès Ouest wala maire de la ville de Thiès Habib ndax yaa ngi sóoraale loolu bu la waa Thiès wala ne Euh, ñëwal jiital ñu suñu liste ndax pare nga. loolu moom duñ ci waxagum. kon li ma la wax a ah, ah, ah mais yéene nit ko aussi. non non loolu sa yéene la yow xam nga xam nga ko. te au fond. bi mi ngi fii. xel bi macha allah yéene bi mi ngi fii. mais ndax na ndax bëgg na. non xam nga bëgg na mooy wax sànq soxna si bi ma ko laajee boo yëkkatee sa loxo ne fal leen ma tu fais avec tes propres te buñ la falee li nga bëgg mais bis boo toogee say loxo xool li nga xam ne yow war na la ak askan bi ba ñoom ñu soxlaal la seen bopp bu la dénkee nga jox leen liñ moom te ñun on est dans cette dynamique bëgguñu wëkk suñu loxo ñu jox leen ni parce que suñu moyen ñu jox loxo moo ñu jot loolu ñu bëgg dañoo bëgg liñ ñu jox nit ñi moomal ko seen bopp ñu doy leen ñu ñu téye leen bu boobaa suñu ngor ak suñu jom dañu may ñu gën a yokk liggéey bi gën koo yaatal ba ñëpp gis seen bopp. defatu wax nga léegi changement est-ce que changement boobu mooy jëlee fi Idy ndax depuis boobu moo fi nekk. non même Idy ba dese on est quatre personnes man écarté bu personne mais bi di ko resté mais doxin bi day soppi parce que duñ leen fi tegaat muy demee nii ñu li ñu gën a li ñu gën a intéressé rek mooy xeex bi am entre l' administration centrale et la localité de Thiès ñun cette bataille là la bëgg ñu reye ko durant yi nga xamante ni dañoo toll ci phase de liggéey bu ñu demee ci phase d'élection ku mu neex nga xeex. mais bu nekkee ci dynamique gu liggéey ci mandat bi nañu liggéey askan gis seen bopp ci liggéey bi mais parce que jubóo ma Macky Sall wala opposition laa bokk je vais pas mooy joxe lépp nga ne doo jubóo moom mais boo jubóo la moom yow perto parce que tu es un homme am nga sa salaire tu es véhiculé tu as ton garde am nga li nga bëgg mais il faut penser aux populations ñi la fal ba tax ñoo loolu nga am ko il faut que te ñooñu kenn mënu leen jox kuréel kii administration centrale. kon président li mu woote gouvernement union nationale bi ñuy xalaat ni yow ànd nga si. d' accord naa gis. Hmm. je suis mais mais kenn gouvernement bi mu woote noonu ñun moom lañ def rek mooy le cadre de concertation. cadre hmm, ko ci jiitu rek. Hmm. après moom mu wax ko. et et et man je veux qu' il puisse avoir ba ñoom ñëpp ñu bokk ci jëm Idrissa Seck ñoom mais cadre boobu liggéey parce que. Euh, sànq waxoon nañ ko engagement yi des fois daf la laaj ndax tasul nga ni noo tasul mais laaj na liggéeyaat ak non ña fa toogoon ok taxoon ñu créé ko muy askan bi taxoon ñu créé ñu toogoon di déglu ñi nga xam ne ñoo d'accord woon ak ñoom moom mooy kon ni muy say vingt personnes laa yi xam ne man ci laa bokkoon yàquñu dara ci lañ doon def est-ce que pare nga pour jàppale kenn actuellement à collaborer li nga xam ne ñoom laa am muy le réseau d'appui pour le développement la région de Thiès ak le cadre de concertation c'est maintenant c'est à eux de décrire ñoom ñoo naan naan nii la nii la ñu dem ci mais c'est du benn responsable politique boo xamante ni am nga loo tax nga mën maa wax ma wax la lañ dem ma topp la wala ma jàpp pour wax lu la neex wala def lu la neex. Ndeye Fatou toute question avant ñuy daaneel. di wax ne amoon nañu mbégte également bokk ak yow émission bi day fàttu ñoo di suñu conseil macha allah xarañ li muy def te ci journal Le Quotidien euh, àndoon seeg Babacar Ndaw seen émission Place de France mais tey ñu def ko édition spéciale ñëw fii si kër Mohamed El Habib Kane Habib Kane jiite wax na ko léegi réseau. d'appui pour le développement de Thiès, mais surtout cadre de concertation pour le développement de de ñu àndoon ak Thiès Info Thiès ak Sen TV di leen jaajëfal si liggéey bu rafet. Eh, El Habib ñu bàyyi la di rafetlu l'invitation di Sénégal di la population thiessoise particulièrement la commune bu xam dëkk di. dina wax ni que nos autorités compétentes ku ci nekk mu jël ay waay matuwaayam ci li nga xamante ni moom lañu bokk ba kenn bañ a gaañ kenn euh, ñu teg ko ci une très grande transparence euh, di def appel aussi à la population lambda que li ma wax sànq ñu dellu ci bàyyi ci xel que ni ces forêts classées là bi ñu bëgg a déclasser les parcelles là c'est pour la population sénégalaise parce que c'est un domaine national c'est pas un domaine thiessois mais domaine national la wax. waaw mais si Thiès la nag. waaw non c' est je je précise. domaine national c' pour toutes les man man man man man Thiès dëkk fii laa juddoo mais samay mag yi nii en face beneen kër fii Fouta lañ dëkk ñun on de Fouta tey kon d' origine amul dañ naan rek ñoo bokk ñun ay Sénégal ñoo bokk lépp euh, pratiquement euh, ñi nga xam ne ñoo dëkk Thiès surtout ñoom ñi nga xam ne tey bu coow amee ñoo njëkk a jóg ñoom laay wax tey que bu leen xaar bu ñu xaar ñu naan leen dem leen instruire une demande nañu def seen i demande dem instruire ko dem déposer ko au niveau de la préfecture que le préfet moom mi nga xam ne c'est représentant de l'État sache que la population thiessoise a besoin de des des terrains pour mën ci dëkk te loolu ñoom ñoo ko mën a seen bopp mais boo leen ko waxoon ba affaire bi am ba sottiwaat. ñu nekkaat fi di wax sa sera la même chose duñ ci bénéficier wu après day indi day wax rek jur da ngay wax ba sontu doo ci am dara mais yéen ñi nekk ci presse bi ngeen gën ci bàyyi xel kon xam ngeen ni yéen a ngi koy suivre de près ngeen a def appel à la population pour ñu def def def une demande introduire ko du ma wax ñu yóbbu maire du wax ñu yóbbu préfecture parce que foo waxee ni léegi ne ki nga xamante ni moom moo koy signé pour gars yi mën a joxe terrain yi si reçoit leen ko ci arrêté bi kooku moom lay wax askanu Thiès ñoom ñëpp ñu bàyyi ci xel ñu jàppale leen ci di remercier ñëpp di remercier Armand remercier particulièrement le réseau d'appui pour le développement de la région de Thiès bi tax ni tey ñu mën maa woo ba may gis di ma ko laaj di remercier le cadre de concertation ah di dolli di sant suñu borom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gën di mu ak samay waajur di dolli nag di gërëm ñi nga xamante ni moo ñoo waral lépp muy Serigne Babacar Sy ak euh, sëñ Mablaat mi sëñ Fallou moom sama mag bu jigéen suñu taaw moo boole moom ndax moom rek la bëgg moom rek la bëgg moo tax ren sax man it sama benn xarit bii xar mu boole la benn nag jox la nga yóbbul ma kër Sëñ Fall kooku fa jox baax ci màggal bi voilà. jërëjëf eh, Aliou ñu ngi koy ko gërëm mbokk yi moom moo doon tey suñu benn kër ñu amoon bëccëg di ko. Euh, dalal c'est toujours intéressant am jataay mel nii mais surtout dynamique bi nga xam ne si la ñu liggéeyee jaajëfalaat bu baax soxna Ndeye Fatou Niang si disponibilité mais surtout pour la pertinence wax nga ko léegi ñoom Malick Dieng Armand ñu lay jàppale bu baax si liggéey mais toute l' équipe technique ah mu ni Mbengue NG moom suñu sëriñ la mais mi ngi si liggéey bu rafet ah macha allah ndag njegéen bu NG euh, Sen 24 TV Adama Ndiaye Thiès Info ak euh, Nogay euh, jaajëfal leen bu baax a baax Mounirou Mbengue également bu Thiès 24 mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal jox leen dig daye si beneen jataay ak beneen invité jërë ngeen di fa salaam